suqali mbay mi naatal ko ngir ñu àgg ci souveraineté alimentaire di jéego yu état bu Sénégal na mu amal naka noonee baykat yi ca seen wàll gis nag ay bunt yoo xamante ni jàpp nañ ni buñ ca jaaree lool yi mën naa yomb naka noonee ca diwaan bu siin sa Saloum foofee nag ñu nemmeeku ni ñoom ña nga xamante ni ña nga yëngu ca mbay ma gis nañu ab produit bi nga xamante ni moom moo di alsil ak njëriñ la nga xamante ni ma ngi koy am ca foofee ca diwaan bu ñaaxaar foofee nga xamante ni amal nan fa ab toolu dugub ñoom nag wax nañu lañu ñu ca gis. mbéy moo xam ne amul amul engrais chimique te daanaka bu amul engrais chimique mooy mooy alsil bii tey tey bu fekkee ne c'était mënoon nañ ko jot ci suñu programme bii dina baax ci suuf si ndaxte suuf moom lépp bu fekkee ne dundul moom mënoo ci am lu bari gis ngeen ko at yàlla passé boobu defagul ci alsil bi def doon am striga mooy li ñuy wax ndoxam mais gis nga fi mu ne nii daanaka amul loolu. naka noonee nag fa nga xamante ni moom moo di ca fim laa ak foofee ca Birkilane seede bi benn la. ñi ko def ci maraîchage gis nañ ci seen bopp ñi ko def ci dugub def nañ ci gis nañ ci seen bopp ñi ko def ci gerte tamit gis nañ ci seen bopp man personnellement benn expérience laa ci def mooy ci dugub bi te gis naa rendement bu baax a baax. mais j'ai bi ma ko defee sama tool wax dëgg yàlla maa ngi ci sant yàlla. par rapport à gerte cette année gerte meeñul mais mom en un temps record la meñi gerte bi fess te guus machallah macha allah maa ngi xaarandi ngooñ tamit donc lolu sante yalla la ma defat expérience def sama dugub une partie pour limay lek parce que dañ ne bio comme bio la c'est euh, baax si si si yaram si surtout wér yaram jabot motax ma tenté def expérience une partie sama tolu dugub bi ma def ko ba mais machallah mangi ngi bu baax. produit boo xam ne boo ko utilisé dana téye suuf si juróom-ñetti at te du laaj nga defaat ci dara nga utiliser waat ko beneen yoon mu téye ko pour toujours te du laaj te laajte laajate nga cay def dara leneen loo ci def daf laa neex loolu al ci algi rek moom laa ko gisee bi ma dalee bay ba tey. te ji loor nag ñu amal fa la nga xamante ni moom moo di mbayum ceeb ñoom it ñu gis ca seen bopp bu baax. tâtonnement nekkatul ci ki nga xamante dafa jëf gis. ba xoolee boo xoolee parcelle bi mu dëndal nga xool ne deful dara ci argile nga gis parcelle bi dégg daf lay jaaxal da ngay xanaa kii dafa ji bëgg non non non on a le même jour indi na urée def indi engrais triple quinze def ñu ñu ñu ñax bi dee mais yem xaaju ñu niru y a une nette différence. lii yëm ci mbayum gerte gi alsil wane fa ab taxawaay bu wér. engrais yëpp nag jëfandiku naa leen. waaye engrais alsi bi bi ma ko jëfandikoo waa Fimela yëpp de waa Fimela yëpp béykat yi waa Fimela képp ku romb suma tool laaj na ma ndax lan nga def ci tool bi wan engrais nga def ci tool bi ndax gis naa ci rendement boo xam ne ah te ñëpp gis nañ ko it xanaa ñàkk am doole pour utiliser ko waaw waaye engrais la de boo xam ne eh, xam naa ne daal buñ ko jëfandikoo ci suuf si defe naa ay nawet yi nit ñi danañ mun a jëriñoo seeni mbéy waaw loolu daal yaakaar naa ko ci ANACIM bi ah, mooy maraîchage bi mooy mbéyu dugub mbéyu gerte fépp ci suuf si daal lépp loo xam ne day génn ci suuf si engrais bi baax na ci ANACIM bi baax na ci. ñeneen ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu culture ñoom it wax nag njëriñ li nga xamante ni ANACIM indi na ko foofee. léegi suñuy planté xam nga suñuy planté day eh, garab bu bees dañu naan il faut nga def si fumier et cetera et cetera. ñun nag liñ koy fertiliser mooy alsil on a essayé gisuloo kii naka lañ ko waxatee su fekkee ne gis ngeen kii moom laa ko moom laa ko moom laa ko planté parce que ci li ñu amoon ci quota boobu nga wax mm. euh, dafa dama si dencoon deux sacs yoo xam bon je ne les avais pas utilisés moom la bon léegi jeex na quand même mais yi ma am ci ay garab léegi moom laa koy planté li lay tax ñoom ñëpp rek ñu jàpp ni faw nguuru Sénégal gunge leen ngir nag alsil mi ñu mën caa jot ndax mbay mi gën a mën a am ndëgërlu ca gox boobee. buñ ci amee ndimbal daal eh, wax dëgg yàlla am na njëriñ lool am nañ ci yaakaar waaw loolu daal mun nañ ko séede ci alsil bi. ci maraîchage bi encore même chose waaw mooy li ma wax léegi maraîchage bi lépp luñ fi def képp ku fi dugg dina laaj ndax lan ngeen def ci seen dugub. duma ko booleeg engrais. engrais alsil moom. Euh, ñu ngi ñaan nguur gi fi nekk ak seen vision bu bees bëgg a indi beneen xarkanumu Sénégal ñu ngi leen di ñaan béykat yi foofu rek la ñu am parce que dañ ne Sénégal ñun ñëpp koy développé ku nekk fi nga nekk fa ngay développé donc autosuffisance alimentaire bu ñuy wax ñun mun nañ ko jëlee ñun béykat yi buñ ci amee lu doy mun nañ créer autosuffisance alimentaire dootul ñu jéggaane ji lenn lépp. feebar yi dana wàññeeku fan yi danañ yokk gën a nit ñi danañ gën a dund. parce que li ñuy lekk amatul benn doomu tooke ci biir donc loolu rek waroon naa tax l'État sénégalais pour mu sàmm wér yaramu population que mu utiliser l'algile fépp ci Sénégal ba ñëpp di ko di ko bayee ci àll bi. ñun ñëpp nañ si jàpp pour que les décide les décideurs fexe ba algile yomb ci béykat yi yomb lool ci béykat yi ñu def ko ci tool yi vraiment ñu mën a am dund bu sax dàkk fi lañuy ñuy tant que ñu ngi ci yoon boobu gëm naa ne euh, état bi fu muy xaar sax pour autosuffisance alimentaire am fii ci réew mi dafay gaaw a yëg si béykat gis ci boppam sàmmkat gis ci boppam parce que ñax bi ni mu ni mu mel nii aussi c'est pour sàmm c'est pour jur gi donc c'est l'élevage et l'agriculture ku ñu dégg nañu wollu si ci lii nga xam ne moom la baabu wax kii bi dañuy dem ba ci yàgg ci ñu manque de moyen bi daf ñuy xañ bu bëri parce que moom li ma def fii ci ay tonnage ci kii bi ci produit boobu mënuma ko mënuma ko simple jigéen rek laa waaye moom mi nga xam ne góor la ko ci njël mu jaral ko ko mu xam ne day yaxanal poosam lu nekk def na ko ci pourtant man mënoon naa ko dabu de waaye aw ma doole pour dabu waaye bu dee ñu yendu fii ci naaj bi di ko def di ko def rek ñeme naa ko de. argile faw ñu jëm koo faw ñu dugal ko man sama sama mbébét. daanaka man doomu béykat laa si bay laa juróo si laa yaru donc argile faw ñu intégré ko mu dugg parce que dafa baax si suuf si bio kay du du rey suuf mais engrais chimique moo gën a bon même aliment engrais chimique sax boo koy lekk da ngay am da ngay am problème wér-gu-yaram donc loolu la ngëneel yooyu moo tax man ma bëgg ñu dugal eh, argile bi parce que bio la.

d'ailleurs ñu ngi koy jaay on a des magasins on a des dépôts de stock ñu ngi koy jaay mais xam nga béykat Sénégal amuñu dafa néew doole lépp lu am su jaarul si ndimbalum état duñ ko mëna a jot ñun xam nañu réellement que alsil du ñëpp ñu ko mun jëndi amna ay baykat yi majorité bi 80 des agriculteurs mënuñu jindi capacité bu leen di doyal pour amender sen sol ben yoon mënuñu ko dont ni sax c'est une tonne à l'hectare pour une durée de 8 années ben tonne si juromi ñetti at fu ñu ça fait 4 ans la ko def musu si yok dara donc lolu rek économie la lolu rek def na comparaison si yenen tool yi nee na chaque année day def DAP té day def l'urée alors que alsil bi depuis bu mu defee ba légui fumier sax defu ko si donc ça c'est un avantage et c'est une économie aussi pour l'État. C'est une économie pour l'État. Les on espère bien que maintenant, avec le nouveau régime, avec la nouvelle euh, orientation politique, on a un bon espoir que les choses vont s'arranger et les choses vont rentrer dans l'ordre. gis ministre a il est très positif Il xamal nañu développer agriculture Il ak bile produit di alsil ñu jàpp rek nii lépp lu jëm ci wàllu sécurité alimentaire mën naa ñoŋ ci Sénégal naka noonee nag yéene yi jëm ci politique de souveraineté lool yi nag mën a doon lu dal xel ak bile produits baykat yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sàmmkat yi loolu yëpp rek mën leen a jëriñ xel yi xalaat yi jëm nag ci wàllu mbay mu naat ak li nga xamante ni moom di produit bi di alsil